maanaam bu bëggee dégg dëgg amu ko ci lamb régularité daal la Siteu amul yëglikaay ba nag daa jàpp ne boo xoolee Siteu des fois day daanu ba pare jóge ca daal di daan ñu ne déet na waaye foog ne day continuer mu daanuwaat moo tax daal yëglikaay ba xëy tey jàngatale lu mel ni ki noonu moom si nag ku ne xam na ne mu nga dëgmal combat bu méttee métti diggante ma ka nga xam ne moom mooy Papa Sow bu Parcelles Assainies yëglikaay baa xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom Parcelles Assainies la dëkk ñu naan ko Franc ka nga xam ne moo xëy sampal ko ndën mooy Pape Ndoy rakku Lagros mi daan bërki dem abu ñaase Pape daal ne na xel ma la ca ne du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di Franc mu loolu mooy gis-gisam tey itam nag loolu la bëgg moom la wax ka ko tëggaloon làmb nag muy jamaykee jam daal daa mel ni boo bëggee dégg-dëgg moom bërki démb stade Iba Mar Diop maanaam na mu ko def doy na waar la moo fa ñëw doy na waar lool stade ba dafa fees dell dell moo tax nag yëglikaay ba jàpp ne daal Assane Ndiaye moom jamay jamaykee da koo détrôné sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ñu yaakaar ne jamaykee fa la yem mu indiwaat beneen combat boo xam ne maanaam ay xale ñu tolloo taxaw taxawaay war a tolloo doole muy diggante góor a ak ka nga xam ne nii moom moo di Fils de Balla yëglikaay ba nag moom sunu lamb nam ko jàppe mooy revanche par procuration parce que nag daa jàpp ne Modou Lo Balla Gaye numéro 2 foofu daal moo fa yeewaat loolu la fa jamaykee yee leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne ni moom mu ngi dëgmal bés muy Gaston Mbengue mu nga xëy tey ñëw di wax ci combat le 28 yi nga xam ne moom lañ jëm muy diggante Forza ak nga xam ne moo di ak Alioune Seye numéro 2 Gaston Mbengue nag xëy na daal nee na boo bëggee dégg-dëgg daal bés ba moom nar naa nekk bés boo xam ne bu mag a mag lay doon loolu mooy waxtaan tey di fa nga xam ne moo di sunu làmb yëglikaay ba tamit ñëw na tey dina wax ci loo xam ne ni daal maanaam ay mbër yoo xam ne dañ leen recruter ci wàllum gàdd rapproché mel ni ki daal vingt lutteurs yoo xam ne ni daal recruter nanu leen ama seen senior ne kuréel Queens ñu daa mel ni daal ah yëglikaay ba daa mel ni daal ñu nga ca biir looba yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu yemu ca moom sunu làmb ñëw na daal leeral ñu loolu ba mu leer nañ bu nu continuer ba yéenekaay bi nag mu nga xëy ñëw ak ñun ci wàllu làmb ja nga xam ne nii daal moom moo di làmbi simple ja mu mel ni ki nag gala jax ba nga xam ne moom moo amoon bërki démb dimanche ca terrain adresse Senghor yëgli bi daal xëy na di dinu xam ne daal ka nga xam ne nii daal moom mooy ex daal moo fa dominé ka nga xam ne mooy l'international sénégalais bi nga xam ne moo di ngóor ñaax gagné ko daal la def ordinateur tamit yëglikaay mu ngi ñuy xam ne daal galaaw fi mu la ba nga xam ne moo amoon la vingt jàpp la vingt et un daal novembre bii ñu génne daal moom ordinateur lan fa tegoon moo ko jël ne ko jon ne yóbbu yëglikaay bi suñu làmb xëy ñëw di wax lu mel ni ki bu nu fa jógee record daal la ñuy dem record mu nga xëy tey ñëw di xamal ka nga xam ne nii daal moom moo di Pape Ndoye ma nga xam ne daal daal na Abou Niass yëglikaay ba daal nee na moom record na Pape Ndoye daal victoire ba mu am daal avec la manière la ko ndax xam ne moom moo di Abu Niass moo dooy waar te yéeme lool ndax yëkkati ba ca kaw benn ko daal dóor ci suuf la ko def moom yëglekaay ba di record moo xëy ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu kenn koo xam ne bés booba dafa ñàkk ca jàkkaarloo ba doon dox diggante ak Cheikh Super Jamono mooy Maam doomu Faas moom kombaam tamit da koo ñàkk leneen loo xam ne daal yëglekaay ba xëy na tey ñëw dinu ko wax mooy la amoon Adrien Senghor El Hadj Thiaw Sow maanaam daal moom moo dominé ngóor ñaax yëglekaay ba moo xëy ñëw tey dinu ko wax moom moom record leneen loo xam ne nii daal boo bëggee dëgg-dëgg daa mel ni mu ngi ca record muy wàllum football baag Edouard Mendy ma nga xam ne nag daa mel ni daal boo bëggee dëgg-dëgg daal la nga xam ne mooy sa bés FIFA ba daal moom Edouard Mendy daa mel ni day bokk na ca ña nga xam ne daal moom lañ ca nominé ca ya nga xam ne ñoo ko war a gagné waaye Edouard Mendy moom loola waaye mën a wax ñu nominé koog ñu bañ koo nominé boo bëggee dëgg-dëgg jamono jii nu nekk moom wàllum góol ci ay camp buñ koy wax ci àddina bi moo ciy numéro un loolu la yàlla dogal moo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangoo waaye loolu moom am na ba pare. ci nga xamante ne mooy Gaston Mbengue mhm. mhm. mooy lu nganda lu rëy macha allah loolu am na parce que li tax mooy moom mi tëgg làmb ji moom papa Gaston ñu koy nuyu di ko ziar du ko ndaw ci làmb mhm. du ko ndaw tamit ci Sénégal parce que loolu la yàlla dogal ci moom. Mhm. ñu koy ziar di ko ñenal yàlla bu baax a baax mu gudd fan te wér yàgg fi. waaw parce que suñu papa la ñun ñëpp di suñu nijaay. Mhm. ah euh, defe naa force ak pakala ba bu ne lu rëy la. Mhm. loolu moo am parce que képp ku xam làmb te di ko topp. toppoon ñoom ñaar fi ñu jaar xam fi ñu jaar ci wàllum làmb di nga xam ne. tey combat bi Gaston indi dimanche prochain wax dëgg yàlla lamb ju rëy rëy la te lamb du ko gën a neex kon dañu ñaan yàlla rek ñu yegg ca bés ba le 28 ñu bëre ko ci jàmm que le meilleur gagne ko fekkee te tal ko mhm, mi ngi noonu il paraît que ce sont des cibles ñuy bokk ci ñooñu euh, parce que xam naa ne ñàkkul jàng nañ métier bi ba ba ba man ko parce que garde rapprochée moom defe naa ne nekkul da ngay fekk baab xam nga man mi mënu ma def garde rapprochée parce que jànguma ko mais ku ko jàng nag ba man ko moom ah buñ la jëlee pour nga def ko mhm. macha allah métier la liggéey la garde rapprochée waaw sens la tamit de plus par rapport ak ñoom li ñuy def waaw parce que foofu dinañ fa am bu keroogee lu ñu fay jëlee mu nekk loo xam ne dina leen gën a dina baax ci seen vie daal dëgg la te monde bi sax léegi dañoo toll foo xamante ne Babacar mhm. kenn concentré wul ci benn affaire rek yam ci waaw du woor de les gens maintenant son euh, dañoo. waaw da ngay def yëfu bawal bawal rek da ngay ni bawal bawal yi di def rek dem defi lii c'est c'est très intéressant. la Ismaïla doon bawal bawal saa boo boo xëyee yaa ngi jënd say biteel di jaay ñuy jënd. dëgg la ba xotti saako yi yaa ngi lay fekk ci leen ak leneen noonu la nit moom noonu nga war a marché quoi. est-ce que du looloo tax nga daw ñu démb démb euh, non démb dama ne waaye nag bool bool laa de man euh, moom man moom di ñu rendre compte di ñu amul problème waaw ngi noonu yow boo paree ma rendre la compte moom daal moo tax ba démb émission bi amul yow soo paree ma rendre la compte <laughs> waaw mi ngi noonu soxla nañ ko trop Babacar amul muskila boobu nga xamante ne mooy record lutte vainqueur Dabou Niassé dimanche Pape Ndoye signe une victoire de avec la manière maanaam li mu daane moo neex moo rafet. ah mi ngi noonu. waaw loolu moom am na parce que na mu daane Abu Niass rëy na trop. ñu mhm. koy féliciter moom Pape Ndoye. la boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu. bi ñu ñëwee ci stade bi stade bi yëngu na yëngal nañ ko. Mhm. bëree nañu. Mhm. kenn wane wu fa jëfi ragal. loolu nag su amee ci combat jël bu rëy dafay am te lii day neex amateur yi maanaam komba bu yegg. combat ba yàggul tëwul. xanaa déedéet yàggul tëwul. combat bu gaaw de ci benn lutteur laa ko xam. ah mooy kan. dama koy bañ wax non tuddal ah, du far. Balla Gaye parce que parce que parce que du mbër mu ne am na looy bëree. parce que moom xëy na loolu loolu bëreem la Balla Gaye de moom làmbam maanaam day parce que loolu force la maanaam moom làmbam day da koy da koy baatare mu gaaw. am na mbër yu mel noonu ci biir làmb ji. Mhm. am na mbër yoo xam ne duñ la may dara. bu ñu ñëwee dañuy attaqué bëri am na mbër yoo xam ne ñoom dañ lay déglu yow ci sa boo jógee ci la daje ak yow defante ak yow li ñuy defante ak yow yaa ngi dégg parce que ñoom mbër yi bëri yëpp ku ci ne am nga loo nga xam ne sa force la yaa ngi dégg moom xëy na loolu force am la borom bëre daan ñibbi ah? waaw loolu de waaw lool waaw loolu moo gën a wóor de bëre daan ñibbi loolu yëfam la. Mhm. Euh, mi ngi noonu Babacar tey daal euh, loolu la indiloon euh, suñu internautes yi. Mhm. mi ngi noonu bàyyi la nga nga tàggatoo. waaw di bëgg ñëpp di ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmma barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah. waaye def ko si àddina bi yëpp parce que jàmm moom lu dul jàmm rek jàmm ko gën. fa muy jógee. dafa fa jeex mais fa mu jëm du fa doy kon yàlla nañ ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel suma gars yi ah, Assane Fall Global Textile maa ngi koy bégge depuis Parcelles Assainies di nuyu Rimka Couture borom Touba Sandaga mhm. ah maa koy bégge bu baax a baax a baax di nuyu ki nga xam ne tamit moom mooy adjudant Thiaré mhm. nekk fa nga xam ne ni moom mooy direction douane di douane maa ngi koy bégge bu baax a baax a baax di nuyu ki nga xam ne tamit mooy commandant Fall ñoom ñëpp maa leen di béggee coach su jabon depuis Paris maa ngi koy ziar bu baax a baax ak chef jabon tamit di nekk ci armée bi nekk sapeur Elas Sarr tamit nekk policier nekk fa nga xam ne moom mooy central maa koy bëgg bu baax wa nekk foofu ci wàllum faj ma mhm. ah nekk ci police bi kon tey képp ku nga xam ne takk dara rek Babacar nga lay bëgg di la ñaanal jàmm ñoom Awa Diop nag ak Adama Ndiaye ñooñu mention allah Babacar bàyyi ji ma tontu. ah non tey moom xam nga man dama bëri ah waaw nga. <laughs> Babacar bu yàq suñu plat. ah lu ma def. nga ne da ngaa kersa. eh <laughs> c'est bon s'il te plaît. <laughs> kon noppi na. mi ngi noonu di nuyu ñëpp man moom su ma limee damay juum di nuyu waa Sénégal waa diaspora bi képp koo xamante ne